dañu seet bu ñu jaaxlee. waaw moosa jirim nag Kebs dafa nekk moosa boo xamante ne ne. dafa metti waaw man bëgguma woon sax ñu boole ko si si si si si programme bi. Mm-hmm. man man mook demaa ma part personnelle du ko sax déglu. man bi ma ko woyee ba tey duma ko. du ma ko déglu du ko déglu mais naka nga dundee en l' espace d' nga ñàkk sa ñaari waajur. métti métti métti parce que li tax mu métti mooy. tey par exemple man ñun dañu nekk ay ñun ñëpp ay jigéen lañ. Mhm. mais jigéen yoo xamante ne amuñu kenn ku dul euh, suñu ay waajur. Mhm. donc seen ci ñoom lañ yeroo ci ñoom lañ màggee ci ñoom lañ lañ ñoom lañ xam. Mhm. sam papa moom il était malade yàgg na def na ay at moom dafa feebaroon. feebaram yàggoon na mais par contre sama yaay moom deewam dafa bette parce que. feebarul feebarul feebar feebar feebarul feebarul woon waaw parce que bi bi sama papa di gaañu oh, ci la sama yaay feebar. donc bi sama yaay gaañoo sama papa gaañoo ba mu def huit jours may ñëw Dakar après ci laa ànd ak moom. premier jour bi nga ko yëgee nan nga def nan nan nga ko dundee nelawoo. bon dee bi mu njëkkee euh, sa njëkkee gaañu ba pare ak sa yaay. mu tegaloon lan lan man nga fanaanee jour boobu. sama sama sama deewu papa. Mhm. peut-être euh, marqué na ma. Mhm. même sama papa dafa feebaram dafa yàggoon. Mhm. mais sama deewu yaay moom mooy loo xamante ni nii peut-être doo ko mës a miis. li tax doo ko miis mooy sama yaay fii la ñëw mu yóbbu ko euh, clinique la nekkoon. ba un certain moment ñu transféré ko. Euh, presse yi principal donc mu nekk fa jékki-jékki rek def rechute bu bu extraordinaire bu bu gaaw a gaaw euh, bi loolu amee après veille bi muy gaañu mu ngi nekk veille korité docteur bi woo ma en personne ma ñëw bureau ma ñëwee toog après mu expliqué woo mu ne ma que ne vraiment mu expliqué ma que ne sama sama yaay dafa feebar. et feebar bi def ko. daf ko gagné de de de de de de après bi mu commencé wax ma ne ko man docteur man du ma xale man magum jëm laa. wax ma li xew. mu expliqué ma exactement ma ju génnee ci biroom ma yéeg dem si kaw gis sama yaay donc ni ma ko gisee xam naa ne kii mu ngi souffrir. donc maa ngi ko euh, fekk fi mu fi mu ma ma jox ko ma jox ko sama sama loxo. mu téye sama loxo lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg mais boobu xam naa ne mu ngi mu ngi mu ngi souffrir bu baax a baax a baax a baax a baax après bi may ñibbisi si yoon bi xam naa ne maa ngi dem mais xam naa ne sama yaay dima ko bàyyee. Mhm. yàlla rek moom moo si des. <laughs> après ma ñibbisi man bi ma ñibbisee ak sama grande moom moo fa nekkoon. Mhm. bi ñu foofu après man ma ñëw te di may nelaw ma parce que man maa ngi doon tout moment. mën nañ ma woo ne ma sa yaay sa yaay wàññeeku wàññee wàññeeku na ma ñibbisee ci ci ci ci jour korité mu mel ne dañ ma ne yow toogal rek xaar mhm. sama sama sœur bi bi ñëw na si néeg bi eh, bu fa ubbi rek ma ne ko lan la lu xew caama mu ne ma dara moom day dem hôpital parce que sa mbàjjen moo fa fanaanoon bi mu ay 9 heures chaque 30 minutes ma woo ko naka sama yaay mu ne ma mu ngi si jàmm chaque 30 minutes ma woo ko ko naka sama yaay mu ne ma mi ngi si si si jàmm ba ay 10 heures yooyu laa ko woo rek ko woowee mu ne ma gëne yàlla def na yàlla def na li gën. Hmm. mu nekk lu doy waar lu métti loo xam ne Sénégal yëpp euh, euh, naqarlu ko mais yàlla sunu borom mooy xool lu ko neex mu def ko nga nekk xale. Euh, sa yaay gaañu sa papa gaañu dafa nekk loo xam ne lu lu compliqué la mais yàlla sunu borom bu soxlaa